Euh, man bamay wax ci Walfadjri ba may def sama chronique parce que ñooy xamuñu principe émission bi lu dul la rappeler fi chacun fait sa chronique après ko am lo wax ci actualité da nga wax ko donc moi quand je faisais ma chronique sur Walf Aliou n'était pas là il s'est fait tailler euh, euh, par ses confrères de de de Walf et euh, moo loolu min yow ban clinique la la gën a clinique raa bi waaye yow yéen Doudou yéen ngi si naan du ki mo fi bëgg andi ni man mo kenn la fi bëgg indi yow man maa ngi ne diggante ay convention yàq nga ma léegi El Malick mi nga xam keroog tagg naa ko fii. ban El Malick. El Malick dafa war a démissionner. ay ay il avait demandé le pour une première fois c'est sous son magistère que avion bi daanu dafa war a baax Aliou Sow jëlal Aliou Sow siifal mais mais moom mi tamit xam nga tamit neexul ba neexul mais man ñenn yi bu ñu waxee yéen dëgg yi damay bàyyi bëgg leen wax ñu dëgg parce que xoolal bu waxee bu waxee bu

des infrastructures mhm. El Malick mooy ministère des transports aériens mhm. El Malick mooy ministère des transports terrestres mhm. donc El Malick ci boppam moom mooy ministre de la terre et du ciel parce que El Malick parce que coopération rek le le ci Karim Wade yokkoon te coopération boobu amu amul benn sens loolu loolu benn cabinet là rek buy gérer ay ay affaire yaa ngi dégg di di nga nga cabinet la nga ne lan loo loo mujjee Aliou coopération Ah. ministère de la coopération c'est rien du tout benn cabinet c'est un cabinet d'études

bon, euh, peut-être que c'est à, un moindre degré, mais c'est exactement la même chose qu'elle a dit. Mm. J'ai comme l'impression, des fois, de subir de la haine vis-à-vis -vis de certaines personnes, mm. surtout nous savons que train de se gens Parce que vous avez des gens, comme qu'elle a fini, comme qu'elle a dit, nous sommes ba duñ ko ba duñ ko a nëpp. waaw dëgg la léegi dañuy dañ koy dañ koy jéem transformer en sourire di ko di si je peux le dire comme ça mais dem ba sës dañuy gis benn petite bête duñu sax am contrôle bi. Mhm. xamuñu sax li xew maîtriser wuñu environnement bi bi bi ñu doon waxee ñu mujjee obligé di génne. yenn façon coow yi yenn façon yi waxin yi. Euh, xam nga ay sot mi ngay wax keroog. Euh, euh, bi bi moi j'étais même mm-hmm. même pas présent sur le plateau. non, pose le micro bi même pas présent sur le plateau. mais il wallaay tu n'étais pas présent. j'étais même pas présent. Voilà, te image c'était clair. mais tout de suite ils ont mm-hmm. pensé que ni comme gis nañ ma après ci émission bi. ils ont pensé immédiatement que ni ay surtout li mu doon man dama mu koy wax. xanaa logiquement bu fi nekkoon sax da nga da wax dara. mais mais mais mais Aïssatou mais su ma neexee sax su ma fi nekkoon du ma wax. waaw t'es pas obligé de parler. mais moi je je je fais ce que je veux. absolument mais Aïssatou Diop Fall bi muy dugg bi muy dugg Walfadjri man j'étais pas là. ñoom ñoo ñoom ne kenn nekkul woon Aïssatou Fall li mu maîtriser Walfadjri man maîtriser wu ma ko. man Walfadjri dégg naa fa ay ay wax yu rafet yoo xam mm-hmm. ci ay kilifa kilifa ñoo xam ne

ci biir fi ci biir Walfadjri laa nekk woo ma sax laaj ma. mais kon ñoom kenn woowu la. mais kenn woowu ma laaj ma kenn laaju ma dama dégg rek tur affaire am loolu man nag dama am ñaari problème ñaari faiblesse mooy mooy ñaari jigéen ñoo xam ne dañ sama sama sama sama life dañ dañ ko dañ ko kii. dañ ko dañ ko tënk. Mhm. yaa ngi dégg te te te te des fois damay bëgg wax. Mm-hmm. mais mais dañ dañ may ñaan def pour ne bu bu la mm-hmm. kenn ki kenn ki kenn ki yaay la mm-hmm. de très près des fois j'ai envie de répondre ya ngeen doon waxu délation ni mais délation yi yi def man ba France délation bi dem ñu mais mais nañ dem France ñu defal mako ñu ñu dem la bimu divorcé ak jëkkëram jël ñaari doomu yóbbu France and mm. ak ñom dem indi leen nañ dem xol koku ndaw soso ba fu mi nekkee fonctionnaire ba ba mi retraité au ministère de l'Éducation nationale ba nim ñu duggalé école ñu nekk collège nekk lycée mm-hmm. man ak sama rak bu jigéen ba sama rak bop tay mom tam fonctionnaire la xam nga nañ dem laaj koku quoi mo mm-hmm. gën nañ dem nañ dem laaj tala Sylla mm. man man may kan ak fiñ ñu ma fekk nañ dem laaj Moussa fan may fekk sam nañ dem raaj rahmet rahmatuka bi nekkoon bi nekkoon bi ne bi ne bi nekkoon bi ne ah nañ nañ dem nañ dem ñu fekk ma man fi ma toog man nañ dem seetal ma sama 652 mètres carrés yi ndax man maa ko moom wala déet boobu titre foncier la boobu amul sàcc amul ruux amul ma amul libération da ngay am moo ni nga jënd nañ dem seet waa Crédit Lyonnais kan mooy Aliou monsieur et madame Sow

waaw non dama xam naa non non oto yi jotuma jël. waaw mais yow jotuma jël mosoo rang visa. waaw maa la du ma rang visa. mosoo rang man damay waaw waaw xam nga yéen da ngeen wër visa am na ñoo xam ne dañuy visa sax ñu leen koy refusé. mais mais mais mais te ma yokkal mais mais mais Doudou est-ce que am na dëkk boo dégg ci àdduna dëkk boo dégg bu bu te man demuma fa. déedéet Mm-hmm. wala Chine Chine de dem fa mm-hmm. mais wax leen ma dëkk ba en Asie du Sud-Est mm-hmm. dëkk boo xam ne man Alioune Sow dew ma fa est-ce que am na avion bu dul onco Concorde boo xam ne dugg dugguma fa man Concorde qu'est-ce qu'est-ce qu'est-ce kese la dul waa léegi mais man sama bopp tey jii nii fii 60 mètres carrés laa dëkk mais maa ngi bàyyi 652 mètres carrés wallaay ndeysaan mais laaj leen ñi fi nekk am na ñoo xam ne ñëw nañu sama kër teral naa leen ay defal naa leen ay teranga mais man ma choisir ma man li mënul continuer duma def comme samay waajur dem ba tok ba mag, ba maget Ni d'abord bëgg na di dégg ñuy nodd di jege fu ñuy noddé d'abord bëgg na liggéeyal sama réew mhm. c'est pour ça que je suis là et quand je suis venu j'ai eu la chance de parler ci certaines ci yenn béréb yi mhm. am kilifa bo xamné daf ma né bir wal fajari mhm. yow bu fi sid Lamine Niass nekkoon yow dina la bëgg trop kenn waxatu ko waaw dëgg la dé c'est vrai Et pourtant wallahi c'est la vérité kilifa bu maanu c'est la vérité ñaar lañu waaye kenn ki surtout. Mm-hmm. kooku mun naa ko waatal maan. man ki man si Lamine Niass dafa dafa dafa gaañu rek dafa laaxu rek. nga ñëw ñett ñetti weer même pas ñetti weer euh, décembre la la laaxu. Mm-hmm. Euh, fin février ma ñëw dugg biir wal fajri. depuis loolu maa nga fa. te xam ngeen ni du salaire moom ma fa téye. Mm-hmm. ndax man nag. yaa ngi sant wallaahi moo tax ñuy wax Macky Sall daf maa defal wala Amadou Ba ñu mosuma leen gis. Amadou Ba yow musaal teg loxo. mus naa la mus naa yow yow Amadou Ba yow. xanaa nga mës ma woo ci ñetti at ci ginnaaw. Mhm. ma ne la damay damay terminer sama sama sama sama sama rédaction man damay nekk damay terminer samay correction parce que man sama journal. Mhm. man maa koy corriger bu amee faute man la. Mhm. xool leen ci biir. ça va am benn faute. Hmm? dem leen ngeen xool. quel de langue. nga la wax loolu. ah oui waaw wala boog amul limite waaw kon man aw man man man man man lan lañu bëgg. lu nekk yàq nañ ma ko nee nañu. mais mais mais dem waa ji nekk fële Amérique nee nee na man man man góor jigéen la wax loolu. mais comment il s'appelle. kii Tung. waa Tunkara Tunkara mooy bi. mu ne man góor jigéen la mais man man man man man man famille Artman laa takk. man kenn wax ko ma Gwin laa. mu ne man góor jigéen la man samay doom dañuy muuru ah. man sama samay doom ay ay ay jullit lañu. Mm-hmm. mais seen yaay protestante la. Mm-hmm. mais samay doom man ay jullit lañu. Mm-hmm. te dañuy nekk docteur par force université d'excellence lañu nekk kenn ki mi ngi nekk Bâle en Suisse kenn ki mi nekk à Fribourg dans le sud de l'Allemagne ñeenti làkk lañu làkk ku nekk. Walfadjri gis nañu leen fii ci réew mi ñi xam xam nañu. te ku leen am di nga am jabar bu baax. Ah, wallaahi bu ñu amoon âge. wallaahi man maa leen wax loolu.

Non, c'est, mais parce que j'ai d'autres priorités. waaw Eh. ay waay mais man journal soleil laa nekk soleil mooy sama imprimerie man mais waaw léegi dem leen ngeen xool ndax man amel naa leen dara gis nga gis nga euh, yàq der il faut li ngeen defal nii li ngeen def nii nii ci àll bi nii eh, mm. mooy bâtiment yi ñu doon photo naan diw mais doole ma ko dem defal France dem leen ngeen dem France ngeen laajte ngeen xool au moins wala sax ngeen laaj ñi fi nekk am na ñoo xam ne nekk nañ fi laaj leen <coughs> il faut arrêter man kay maa dox sama dofu bopp ñii naan ma dañu maa liggéey ki naan lan lay bàyyi ci la ñi la est jar nañ ko Sénégal est-ce que jar nañ ko loo def et cetera man maa man man la yàlla man la yàlla nattu nii man maa am problème man benn problème la am si àdduna mooy injustice laa mënul supporter moom may xëcc ba fii moo may def li may def nii yëpp même bu ma si juumee sax ci wax je suis de bonne foi comme ni ko Aïssatou doon waxee léegi je ne fais pas de mal aux gens Aïssatou man ma rey xar musuma

c'est un enfant gâté. non sama cousin. si amul bu si jar mooy 500 euros te amul bu si am. bu 500 euros. waaw te amul bu am moins de 4 ans. neexoo bëgg nag. te amul bu am. moins de bëgg nag. non non te amul bu am moins de 4 ans amul. waaye par contre. parce que j'en ai une cinquantaine damay sama cousin yaa ngi fii ci ay Thiès ak yooyu. mais mais yàlla moo def c'est rien du tout man man man man problème et puis je, ne fais pas de mal. costume yi vous si ce costume il changé par jour. a la presse. il a garé. ay ay a c'est pas beau ça c'est pas beau moi je fais pas de mal Mais, a la presse. mais a la presse Elle a à la presse la et presse. est a la presse. di à la presse. presse. a la presse. ah waaw waaw waaw ah nga ni la non non non non ah ah ah Diez. filmé wu ko kenn filmé wu ko mais duñ ko filmé wu. non amu ko. Pape Alé fan la jëlee ñaari xaw ma Aliou Sow looy wax nii. Pape Alé si Pape Alé am nga ko wala amoo ko. ii. ñaari télé dañ ñaan dañ ñaan de. moytu ko mais Elmar yi bi ngay wax nii amul amul amul amul benn benn 169 mètres carrés fii. ci filaaw yi ci filaaw. ki war a démissionner.

mais mais juste. <laughs> information de taille. <laughs> man tey su ma manqué woon tuuti weccet sax. man <laughs> émission bi laay bàyyi. mais ay man manqué naa fi ay weccet. ci ci ah. ñetti at yi. Ah. je dois être à léegi ma jege 750 numéro. ak si na de dafa mel ni. wax leen ma rek ndax ndax mus naa toog fukki fan. ci set ci 750. waaw yoo génn yoo xam ne génnu ma ko. Ah. te yooyu xam nga loolu la woon. Mm.

am na ñoo xam ne maa ngi dégg xool man bàyyi naa man man léegi dama dafa amoon ma à partir de. mais loolu il faut ñu ma dugg ci. non non dina ma dimbali tuuti au naa la booleeg courant jàpp si rek. naa la booleeg loolu